anniversaire yi bëri ngeen ci duñu yónnee euh, ay message yu seen ay xarit comédie musicale pour anniversaire yi merci euh, comédie musicale yàlla tere yàlla tere yàlla tere yàlla tere dañuy jëkkee rek ak anniversaire u euh, seex yi Adama ak Awa Jigal tey la seen anniversaire donc bon anniversaire aux jumelles Adama et Awa Jigal longue vie à vous elles sont jolies c'est des jumelles donc tey la seen anniversaire ñoom ñaar ñu leen di ñaanal ñu màgg rek euh, ba euh, tekki et puis joyeux anniversaire à Fatima Gueye euh, c'est de la part de Botor Gueye Massar à Botor euh, Bator waaw ak euh, ki nga xamante ni enfin toute toute la famille Gueye c'est aussi de la part de Fama Thioune euh, donc Fatima on te souhaite beaucoup de bonheur de la part de Bator Gueye Massar ak toute la famille Gueye joyeux anniversaire à Fatima Joyeux anniversaire à ma sœur adorée euh, Salichou je te souhaite la totale. Joyeux anniversaire à bébé Cheikh Oumar Badji, c'est de la part de toute la famille, on t'aime fort, beaucoup de bonheur pour Cheikh Oumar Badji. Joyeux anniversaire à ma petite poupée euh, bébé Annie Semou euh, euh qui souffle sa deuxième bougie, c'est de la part de toute la famille euh, depuis Oran en Algérie. joyeux anniversaire à mon petit frère euh, Chérif euh, Samba c'est de la part de sa sœur chérie Ami Samba depuis Montréal euh, donc Ami Samba qui souhaite un bon anniversaire à son petit frère mu ngi tudd Chérif euh, Samba joyeux anniversaire à Abdou longue vie de la part de tes amis euh, tes amis ainsi que toute ta famille donc bon anniversaire à Abdou Joyeux anniversaire à bébé Mohamed Mbaye euh, de la part de ses enfants euh, Ibou et Kenza euh, sa tante Dior aussi qui te souhaite beaucoup de bonheur mon bébé Mohamed Mbaye. Joyeux anniversaire à Jessica Absa Diouf c'est de la part de sa maman euh, Thiele depuis Paris euh, donc Thiele mooy ah. souhaiter un bon anniversaire à Jessica Absa Diouf on lui souhaite beaucoup de bonheur. kii Garmi la ah donc bii Garmi la au lieu de euh, Jessica euh, Garmi Thiam joyeux anniversaire de la eh part de euh, sa sœur Amsatou bii defe naa mooy Jessica voilà donc Jessica Thielé Diop bu Paris anniversaire à Jessica de la part de sa maman Thielé depuis Paris joyeux anniversaire à mes jumeaux Ousseynou Hassan de la part de votre doomu nday Aïcha Thiam donc un bon anniversaire ah Ousseynou ak Assane euh, ñoom ñaar tey la seen anniversaire euh, Garmi Thiam wax naa ko léegi on lui souhaite un bon anniversaire de la part de Aïssatou joyeux anniversaire à ma femme d'amour Anna Diallo tu es ma meilleure de la part de son mari euh, Sadio Diallo donc Sadio qui souhaite un bon anniversaire euh, à sa à sa femme donc ça c'est la meilleure amie c'est la femme ou meilleure amie euh, de Fama Thioune donc moom mu ngi tudd euh, Anna Diallo on lui souhaite un bon anniversaire de la part de son mari Sadio ak Fama Thioune joyeux anniversaire à Adja bu Fama Thioune euh, c'est de ma part c'est de ta part euh, donc Adja bu Fama Thioune tey la anniversaire am on lui souhaite beaucoup de bonheur et puis on souhaite un heureux à Fatima Sow ak euh, Matar Gaye voilà Matar Gaye ak euh, Fama Thioun astafurlah Matar Seck ak Fama Thioun plutôt mais Matar Gaye la ak euh, Fatima Sow c'est la femme aussi de Fama Thioun donc ñoom ñaar ñu ngi leen di souhaiter un bon nani un heureux ménage <laughs> donc ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal bu baax di nuyu tamit Fatim Gueye ak doomam ñoom ñu ngi ñuy seetaan depuis Bruxelles alors Fatim ça c'est la petite sœur très adorée adorable euh, Fatim ñu ngi lay béggee bu baax fàttewuñu bébé ak euh, toute la famille ñu ngi nuyu tamit euh, sa borom kër. Fatim Fatim mooy goro Adja dégg mooy goro. Adja si c'est-à-dire ah doom ji la Adja nobante. ah bon. loolu yëgu ma ko de. laaj tamit kooba la rek. a mel xale yi mu nabanteel bëri na de. a mel ni yaayam kooba la boo xamante ni ah. donc euh, Fatim Gueye Goro Bijou Ndiaye moom mu ngi nekk Bruxelles. on lui souhaite une très bonne journée 10h22 euh, mooy doog a jot Mamadou Mouhamed Ndiaye yegg si euh, pour revue de presse bi Makhrouche na nga doxalee. et eh, am na benn anniversaire yow anniversaire du kan la. heureux ménage anniversaire de mariage Mame <laughs> Sey Dia Mame Sey Sey ak Doudou ñoom ñooy def seen anniversaire au mariage félicitations longue vie à vous yàlla na ngeen célébrer noce de diamant. d'accord man tam amaat naa beneen anniversaire. boobu bana. voilà <coughs> sinon euh, Nadoura mu ne Famathune moo ñu dàq way xaw ma xam naa noppi yee fàtte rek. non moo ñu dàq way nag. noppi yee noppi yee fàtte rek daf lay faral sa dëkkale mais sama umpaañ la quand même. man doomam laa de te te may mun a doomam la. man c'est mon amour Bijou Ndiaye tamit doomam la. franchement non mais na bàyyi far bi quoi quand même ah. nee na nee na yow la faral yaa dàq way mais nag buñ dee bu dee en toute objectivité sa koor mu ngi ñëw. moo ñu dàq waay Pape Cheikh ñu dàq. quand même. Bijou yow yow Bijou. Bijou nag su ma tâche tamit dikk da ngay wax dëgg mais du artiste bi da ngay. waaw léegi waxal anniversaire bi Bijou ak heure ménage bi gaaw. <laughs> non non euh, jàll na ah, jàll na bu baax. waaw ñoom Doudou Niala ak ñoom Malem Seck of oh, ma filmé waat anniversaire bi jàll na. bu baax alors joyeux anniversaire à Khalifa Ababacar Diop euh, doomu Mamadou ak euh, Marème Cissé ca Almeria qui fête ses deux ans. voilà am na itam beneen anniversaire bu ma jot Ahmed euh, euh, Silla euh, à Grand Médine c'est de la part de Kia Yankoba Yankoba Sow Astou Gueye ak Kiné Diallo nekk Grand Médine donc Ahmed Silla on lui souhaite un bon anniversaire mais mon amour anniversaire d'accord ah, je me je un, par anniversaire de mariage, ah, non c'était lundi ah, c'était comment c'était bien c'était c'était doux. amoon na bonbon amoon na bonbon. déedéet naka feet bi ñun ñaar rek. ñun ñaar rek pourtant mënoon ngeen ñëw invité. donc ah, dafa bëgg un rek. c'est un de mariage c'est ça. deux ans pas cher. yow tamit ñun ñëpp ñoo kii woon. le temps passe vite ah. mais comme comme ñu ba tey. d'accord on le fait à deux. <laughs> voilà d'accord merci man maa ngi nuyu sama sama sama sama sama jabar Ngone